bu bok gis-gis ma ak délégation euh fekk fi mais particulièrement Ablaye ndoy and ci ak docteur Diagne ak euh, professeur Top euh, pour indi euh, kaddu yi mak président Pabio pour ma wax ko

Euh, ñun ñëpp ñoo ko gisandoo dafa mel na bu ñu defee benn pas ci kanam def ñett ci gannaaw euh, boo mën nga ko mën nañ ko tas nag pàcc yu bare boo tasee ci pal démocratie gis na ñu ni am na waxuma recul sax loolu la gaañ yi ñenn ñi di wax mais man wàññeeku jëm jëm gannaaw man loolu laa gis euh, wàllu boo xoolee ci wàllu justice tamit. am na lu yéeme lu doy waar lu fi am loo xam ne nag xëy na euh, euh, peuple bi yëpp a ngi seetaan mais je pense pas que daañ ko bàyyi nii mu continuer euh, dëgg mooy mujj lii nii wolof di wax wiiri wiiri jaari ndaar dëgg bi mooy mujj te ak fu nu mënti jëm ak fu nu mënti jëm sénégalais yi xam nañu ñoom li nekk ci seen bopp xam nañ li nekk seen kanam xam na ni li xam nañ li ñu bëgg xam na nañ fi ñu jëm xam nañ ki leen fay yóbbale ki leen fay yóbbu te du kenn kuy président Pape Diop. Sénégal ci kanam Pape Diop Pape Diop président de la République Métidi, Rangoni, Dinafar, Inch'Allah dina far avons ñu gis élection yi ñu da coalition nous avons Nous continuer wala 2019 inshallah, euh, Pape Diop day gis-gis. Euh, point Bobu, euh, mais président Pape Diop Nous au niveau de bokk chaque commune commune yëpp ñun Pape Diop la ñu bëgg mu dem candidat bokk gis-gis donc président Pape Diop la ñuy la xaar moom mu def déclaration pour wane wax ni moom mooy nar a candidat bokk gis-gis mais ñun moom la ñu bëgg te moom la wax au niveau de chaque commune les gens se réunissent def seen benn kii euh, def euh, pétition pour demander président Pape Diop mu nekk kii li wóor moom euh, opposition yi réeróowunu Euh, nu àndee en bloc élection baxna bu vous sa premier tamit xeyna premier tour mais deuxième tour ñeppay àndandoo xàccandoo dorando li fi fi ñu fi ñu fi ñi nga xamni ni réew mi kanam. ndax sa base Padois sa xel mi ngi ci laaj mairie bi fofu waaw euh, kuy def politique da ngay am lo bëgg té li ngay bëgg euh, la fa euh, nga ko redresser ko fo nekkal fa askan wa fo nek yokk leen ba ñu xam ni nañu foo apporter fa changement bo xamni dañu xamni Sénégal changé na donc xel mën na ci nekk mais lolu day nek de nek question bo xamni day lat nak aussi euh, arbitrage ou président Pape Diop pour que mom au niveau de chaque commune mom mu set kan lay samp mais ñun day paré nañu bu ñu sampé ñu tok bu ñu sampul tamit ku mu samp dañu and ak mom jàppale voilà. sa relation ak président Pape Diop. Pape Diop suñu relation dafa Euh, politique boolewuñu ça date de 1990 ci la ñu ànd gor ànd Julit, ànd bu rafet ànd bu sincère boo xam ni kenn naxul sa morom ji te kenn nit wutul ci sa morom dara Lumay may rek te yàlla tax loolu moo waral euh, bi nga xamé dem ba nga xamni possibilité wu dugg ci politique amna ko ma ñew and ak mom mu yaatal ma ubbi ma ah ubbil ma yoon bi teg ma ci yoon euh, di ma tette di ma won di ma jàppale ma ànd ak moom man tamit euh, en toute sincérité ba ñu àndee woon te loolu la continuer ak moom ba léegi. colonel problème carte d'identité yi koo gis mi ngi koy jàmbat en tant qu'opposition lan moo ci seen xalaat. waa problème carte d'identité yi moom sénégalais bu ci nekk rek mën nga ci wax ndax euh, foo dem foo dem rek nit ñaa ngay jooy parce que kenn amul carte d'identité ils avaient dit que quarante yi passé quarante yu njëkk yi euh, fin avril lay lay jeex ba léegi dégg dara est-ce que duñ ko renouveler encore di xaar euh, benen benen benen échéance bo xamni dañu gëna mëna a tënk nit ñi ci ñàkkum carte pour que ñoñu baña a mën a dem élection de façon euh, li anglais di wax weyteen si yef yaa ngi suñ kanam nañ tok xaar mais li wóor moy sénégalais yi légui ag nañu dëkk ag nañ fo xamni kenn dofutul am na loo xam kenn dotu ko nangu. kenn dootu ko nangu daañu bañ nag place su bañukaay yi daañu bañ wax li ñu war a wax ba ñëpp daañu dégg ci kàttanu yàlla